alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala maulana rasulillah sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajmain mbokk julli yi ñuy ci internet bi ci àddina wërgal képp ñoo ngi sant yàlla mu ngi may ñi dajewaate yéen di julli ci yontu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ko wàccee ci ay ñoñam ak ay saxaabaam ak képp ku leen topp ci lu rafet ba yàlla di dajeeg ay jaamam tabaarakallaahu tey nag sunu waxtaan eh, day jëm ci coow li nga xam ne lëmbee na réew mi ñi xam di ci wax ñi xamul di ci wax ñii defar di ci wax ñii yàq di ci wax boobaa ñun nag sunu responsabilité mooy defar ba nga xam ne eh, mbokkoo gi ak àndoo gi ak jàppoo gi nuñ ko mën a renforcer loole rek moo tax ñu yëkkati kàddu waaye ñun du ñuy ñi nga xam ne bu wax jugee rek ñu waxandoo fa tabaarakallaahu la ca njëkk muy euh, réew mi dafa am nu mu tëddee dafa amit niñ ko mooñee doonte tubaab ñëwoon fa tabaarakallaahu occupé réew mi jël sunu mag ñi di leen sonal di leen indi ay jafe-jafe ci ni nga xam ne noonu la mag ñi bëggee yare askanu Sénégal jàngal leen école yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa yar leen yaru yonentu bi mu yaru diina lislaam tubaab yooyu ba ñëwee dañoo ñëw taxaw ne loolu du ci dal ubbi école française tabaarakallaahu euh, jël sénégalais yi ne far force dana jàng ci école boobu mag ñi ubbi daara loola waral mag ñi daj ci liñ ci daj ci coono yoo xam ne tey la neex nag ku nekk ubbi daara walla ubbi juma takk say rajo au internet bi di wax lu la neex waaye ba fi tubaab yi nekkee booba jàmbaar yi fàkk dëdd yooyu ñoom ñoo taxawoon fa tabaarakallaahu ba li am ci réew mi am ci réew mi tubaab yi occupé woon nañ jëmm yi ak ressources yi waaye mag ñi occupé xol yi fexe ba yar ruux yi xol yi ngi def ci laa ilaha illallah muhammad rasulullah indi cohésion sociale bi nga xam ne macha allah moo tax ñu mën a dëkk dëkkin wu rafet dëkkin woo xamee nii ah, dañuy yëg ne ñoo bokk réew mi pas-pas yi bu wuutee it ah dëkkee réew mi moom du wuute ñu indi li ñu tuddee cousinance te mooy kal ci xeet yi ba nga xamee nii kenn du jaar ci waaso yi mën a déstabiliser réew mi wala taar réew mi ñu naan tukulóor jaami séeréer séeréer jaami tukulóor waaye doo ñu ni sant yi def ci kal na ñeseen kali siise siise Kali Ñaseen Mbay Lo dégg nga Njaay Jóob Géy Sekk yooyu yëpp mag ñi def ko ba nga xam ne tey nit ñi waaso yi lu mu fi bari bari xeet yi lu mu fi bari bari sant yi lu ñu bari bari yaakaar naa ne kenn du jaar ci yooyee pour déstabiliser réew mi wala tas réew mi mag ñi it nit dina ju set ju sell ju rafet teg sunna su leer nañ ñi comme la yonent bi sallallahu waxoon ne bàyyi naa leen Euh, sunu su leer naññ guddi gi mooy bëccëg ba bëccëg ba mooy guddi ga mag ñi ci loolu lañ téye woon indi ay lu mel ni kii ay occasion wu dajale nit ñi lu mel ni gàmm orienté leen ci njàngam yontu yàlla muhammad ak jikko yontu yàlla muhammad ak jëflanteeg yontu yàlla muhammad ni daan jëflanteeg même ñi nga xamee gëmuñ ko bokkuñ sax diine loole nag moo tax Sénégal wuuteeg yeneen réew yi kon loolu nañ ko conserver sàmm ko réew mu nekk dafa am identité loo xam ne moom lañ koy xame suñu sous région bi yëpp coup d'état guerre yi euh, guerre waaso xeet ma ngi fay am ba de des Sénégal traversé nañ ay crise yoo xam ne nii 62 dégg nga maam 68 88 ba 2024 bii ñëpp foogoon nañ ne réew dana basculer waaye fa tabaarakallaahu bu ñu demee ci indi rek xam ne lépp ah, dañ ko teg ci démocratie loolu nag mag ñi jàngale woon nañ ko mu am xalifa bindoon na ne sénégalul aqsa anaaral bilada jamian min fuyudaat cheikh zil alami sénégal gu sori gi nekk ci sowu jant bisa gi ñëw dana leeral adduna bi wane ñoom ñooy euh, ote démocratie pire fa tabarakallah kon mag ñi nañ leen ñaanal yàlla donte nag am na ñoo xëy ni wute na ñoom mag ñi ñu ngi ñaaw di ko teg deru mag ñi waaw waaye nag mag ñi moom nekkuñ foofu mag ñi ñu ngi ci alquran ak sunna yonte yàlla muhammad ak jikko yu rafet jàngal nit ñi ba jàng jafe yar nit ñi ba yar jafe tabax jumaa yi jàkka yi fa tabaarakallaahu eh, eh, sanc dëkk yi nit ñi dëkk waaye gas seen nit ñi di naan eh, yaatal tool yi nit ñi di liggéey kon ñoom ci lii nekkoon jàng jaamu yàlla ah àddina muy eh, eh, foo xam ne yenduwaay la rek waaye fa ngay fanaan yi mooy àllaaxira mag ñi nii lañ yaree woon taalibe yi fa tabaarakallaahu kon tomb boobu loolu laa ci doon wax ñaareel ba polémique bi xew nga xam ne nii eh, muy waxu Cheikh Omar Diagne boobu nit ñi coow yi ñu ciy coow ñi xam ak ñi xamut ak ñi defar ak ñi yàq ak ba même politique sax da cee rax waaye man li ma ciy wax lu gàtt la Cheikh Omar Diagne borom xam-xam la kenn weddiwu ko ba Cheikh Omar Diagne borom fit la Cheikh Omar Diagne ku gëm diine yonte yàlla Muhammad la sallallahu alayhi wasallam kon bu waxee dara eh, teg ko ci xam-xam ñi koy weddi nañ ko teg ci xam-xam rek waaye buñ ci dugal mbiru diine wala tariqa ndax loolu wax naa la day tas réew day yàq réew te tubaab yi ak ñi déstabiliser réew fu nekk jaar nañ fa xam ne ne Sénégal mënuñ kaa taal fenn ci tariqa rek lañ ko mën a jaaree confrérie kon nañ ci def attention moo tax kilifaay diine yi nga xam ñoo ñànk tariqa yi am nañ responsabilité mag a mag bu mag bu kenn seen tariqa yi wala seen kër yi ngir lan régler compte politique wala régler compte euh, dañ nga koo xamee ni da nga am ak problème loolu loolu loolu loolu lu am ah, lu baax dégg nga ndax euh, macha allah. man de buñ ma waxoon ne jumaa seen bi siiñ dafa ne ka ma ko wax dama ko wax kaay woon ma ko ma mën kaa dindi waaye du ma taxaw ne lu tax mu koy wax ndax ñoom ña xam ne ñoom ñoo ko ñoo ko fa def defu ko ci ndigalu kilifa ga wala taaliba ya kon bu dee ñoom dañoo gannaaw def ko fa diw ne ah siiñ nangam mi fa dañ na kaa war a kaay wan ñu ko ñu dind ko waaye nag taxaw ba cee regle compte politique wala leneen leneen kooku moom duñ ko nangu kon li ma bëgg a wax képp ku am compte booy régler ak nit ci politique la wala personnel na ko régler waaye génne ci mag ñi génne ci kër mag ñi loolu rek laay wax ndax affaire yi dafa sensible te wax naa la ñuy déstabiliser réew yëpp te Sénégal jaaree nañ ko fu nekk waaye xam nañ ne foofu rek moo garaaw kon nag xalifa généraux yi jalaat seen responsabilité kilifa diine yi jëlaat seen responsabilité de nga maam euh, ñu xam ne li ñu boole moo ëpp lu ñu teqale te xam-xam bu waxee xam-xam moo ko mën a tontu ñaareel ba it buñ ne lii am na fii nañ ne ko fan la am ñoo bu dee lii la ñu xam ne lii la ñu dind ko bu dee amul ñu xam ne sos la bu ko defee loolu am na ñoo xamee ñooy topp ku sosal nit fan la te gannaaw yoon am na yoon moo ñu takkee nañ bàyyi yoon def liggéeyam kon daal loolu laa ci doon wax ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen jaajëfal di leen wax salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.